humoriste Céline homme d'affaires Bindipé Abdoulaye pendant 10 heures de temps wa DIP ñoo ko poser une questions kg ko ci de lingots d'or yi nga xamné dañ Sénégal Il bu fi président Macky Sall président de la République di koy Paris mu de di muju téré Dubaï Abdoulaye ginnaaw ba ko waa DIC di ko doon déglu dañoo indi ñaari document yu findeel que laale na ci mbir moomee te mooy ordre de sortie bi nga xam ne ne turam si la daal di nekk ak beneen document bi nga xam ne tamit tur kookee di Abdoulaye sila da cee daal di figurer te loolee di findeel que ne kookee di Abdoulaye Sylla daal di nay laale ci deux mille sept cent kilos d'or yooyee nga xam dañ ko sàccoon ci réewu Sénégal daal koy rawale ca Dubaï si li ni mel nag. kookee di Abdoulaye Sylla lu mu tontu enquêteurs yi rek moom mooy que ne ci waxtu boobee moom ak président Macky Sall duñ doon laale ndax dañoo amoon akub jàppante bu jaaroon seen diggante mais waxtu boobee daa dawoon génn Sénégal ngir ragal kookee di président Macky Sall daal di koy tëj ci kaso bi mais waxtu boobee moo ngi woon Dubaï nekku woon Sénégal bay mën a jëlee Sénégal or di ko yóbbu réewu Dubaï te ne fu ñu dippee Paris fi nga xam ne ne foofee la or bi jaaroon ay eh, ata ngi nii demul foofe kookee di Abdou Aziz Sy nag daal dinañ koy bàyyi mu ñibbi këram waaye yoon fas yéene koo dégluwaat ginnaaw li ni mel tamit kiñ dippee Lat Diop nekkoon fi ancien ministre des sports kookee tamit daal dinañ koy oolu tey ci dikk ñaari mbir nag moom moo sababoon ñu daal di convoqué kookee bu si jiitu moom mooy relation bu jaar ci diggante kookee di Lat Diop ak kiñ dippee Jérôme Bandiaky mi nga xam ne ne moom moo nekkoon bras armé ci régime kookee di président Macky la waaye tamit leneen lu sababoo ñu daal di convoqué ki ñu dippee Lat Diop moom mooy que ne kookee dañ koy laaj yorin bu bon bi nga xam ne ne moom la yore woon alalu askan wi ginnaaw ba fi nekkee woon na directeur général ci biir LONASE ginnaaw li ni tamit ñu dippee jaww këccëb tey daal nañ koy teg loxo lu sabab nag police daal di koy teg loxo moom mooy que ne kookee da doon dawal sans permis de conduire kookee di jaaw këccëb nag ginnaaw bañ ko tegee loxo xel yu bëri daal dinañuy ñaaw ndax kookee ki ñu dippee Lat Diop ginnaaw ba muy nekk directeur général bu da ko daal di récupérer mu daal di jaay ngoram daal di ko ci parti bi ñu dippee Pastef daal di rejoindre APR ginnaaw loolee nag dañ gisoon kookee di jaaw këccëb commencé di am ay privilèges yu kenn mënta natable ci réew mii di Sénégal ndax kookee chaque voyage bu ñu doon amal jëmale ko ci youtubeurs yi ak humoriste yi moom moo leen doon jiite presque kooke amoon na sax ay dons yu doon bàyyeekoo foofee ca Lonase ci ko doon fekk si li ni mel nag moom moo sabab ñuy daal di sampalaat daal di koy jëmale si ndax luñ jàpp kookee di jaw ko cëp daa am akub relation bu jaar ci luñ doon auditionné tey kiñ dippee Lat Diop li ni mel tey utilisé na waa parti bii di APR ngir bañ a dem uyu ci dialogue bi nga xam ne ne kooku di président Bassirou Diomaye Faye oote na ko jëmale ko ci législatif 2024 ñu na ma amal ci réew mii di Sénégal kàddu yooyu ñu yëkkati lu koy firndeel moom mooy que ne tey ci oote bi nga xam ne ne Jean Baptiste Tine di ministre de l'intérieur oote woon na ko daal di koy jëmale ci kullu parti politique ci réew mii di Sénégal ngir ñu waxtaanee élection législative 2024 ñu na ma amal ci réew mi di Sénégal kookee di Khalifa

date élection législative le 17 novembre 2024 bi ñu jëm si li ni mel nag kii di Jean Baptiste lu ci parti politique amul droit di ñëw ci dialogue di wax que ne dañuy def li luko moy man duma ci bokk né dippé dialogue pour trouver ay solution la ci ay contradiction waye du ñëw di exiger ay mbir yi nga xamné ne da ngay wax né obligatoirement dañ koy def luko ko damay dal di baña ginnaaw li ni mel nag waa atel ci njiitalu kookee di Omar Sarr ak kookee di Abdoul Mbaw daal dina ñuy génn salle bi daal di boycotté dialogue bi nga xam ne ne kookee di président Bassirou Diomaye Faye oote woon na ko te kii di Jean Baptiste Tine daal di ko fay représenté ginnaaw li ni tamit ministre de l'intérieur bii di Jean batistin Tine yëkkati na kàddu daal di xamal sénégalais yi que ne composition alliance biñ dippee atel ñooñee dañoo pareegut ñemeeguñu daal dem ci élection li ni mel rek mom mo sabab ñooñee daldi daw daldi faq fàq génn ci salle bi wayé né ñom dialogue lañ oté té ci directive bobé lañ daldi nekk li ni mel wa ATEL daldi dinañuy xamal sénégalais yi que dinañ daldi saku ci conseil constitutionnel ngir kookee daal di annuler décret bi nga xamné né mom la di président Bassirou Diomaye Faye daldi jël daldi fixer datu élection yi le 17 novembre bi ñu jëm si li ni mel nag juriste bii di Pape Moussa Sow ne combat boobee waa atel na ma amal ci réew mii di Sénégal akub combat bi nga xam ne ne ñàkk nañ ko ba noppi ndax ne kii di président Bassirou Diomaye Faye balaa moo jël ndogal daal di dissoudre assemblée nationale ci réew mii di Sénégal kookee dafa njëkk a daal di bind waa conseil constitutionnel ngir ñooñee daal di koy jox bés bi nga xam ne ne moom lay am sañ-sañu dissoudre assemblée nationale waaye tamit ne constitution ci réew mi di Sénégal moom moo wax que ne aku président de la république bu dissoudre assemblée nationale ba noppi daa am ci ay délais yi nga xam ne ne moom lañ ko daal di tënk ngir mu daal di amal ay élections législatives ne délai yooye dañoo may président de la république mu daal di am choix daal di koy jàpp ci 60 jours bu néewee ba néew waaye tamit mu daal di koy jàpp ci quatre-vingt-dix jours bu bëree ba bëri mais kookee di président Bassirou Diomaye Faye nag yoon moo ko may sañ-sañu mu daal di jàpp élection yi le 17 novembre 2024 bi ñu jëm soit deux mois après ba mu dissoudre assemblée nationale bi ci réew mi di Sénégal ne si loi ATEL daal di sukkandiku daal di wax ka ne aku président de la république balaa moo jël ndogal di jàpp ay datu élection daa war a waxtaan ak opposition ba noppi ne li ni mel ci code électoral bi la daal di nekk te ne lu koké di président Bassirou Diomaye Faye daal di amal mom ci constitution bi la nek te ne bu féké né da am ci benn mbir bi nga xamné né constitution bi da cee wax beneen loi daal di wax mais constitution bi dañuy jital bo nopi soko wax loi bobé. donc ne koké di président Bassirou Diomaye Faye lum japp jàpp élection yi le 17 novembre bu ko waa atel yóbbee bir conseil constitutionnel la par la force ñooñee duñ ci daldi am ndam ndax date élection boobee wa conseil constitutionnel duñ ko daldi changer ndax constitution bi mom mo sut code électoral